waaw comme ni ma la ko waxee rek Jules Baldé Junior ñu ngi koy ñaanal fi mu tëdd yàlla na suuf oyof ci kawam yàlla na ricc lu lu mu doon ñëwee ci àdduna man Ama moo ko njëkk indi saal ba premier jour Ama di ko fay indi maa ngi fa ba ni ma fa nekkee ba ni ma fay jugee ba ni ma ko xamee ba mu ni mu sàngoo ci biir suuf man kenn jaralu ma fenn musuma dégg ñu ni Jules moo def ñoombe bii musuma dégg ci moom lu ñaaw respect la ma mës a jox cër bi mu waaw li mu bëggal boppam man de Onde man man personnellement man loolu la mu bëggaloon man sama diggante ak moom li ma xam ci moom loolu laay wax. fee bi bi mu amee nag waa bi ma parce que temps est passé zoro zoro daf ma envoyé message ñu ma Onde ma ne ko waaw mu ne ma Jules Baldé Junior dañ ko dañ koo bëgg a jàppale xam nga ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko léegi nan lañ koy jàppale mu ni ma yow man maa ngi sa ginnaaw ma ne ko léegi man dinaa woo alaaj sëy bi ma wooyee alaaj sëy ni ko dañoo war a jàppale Jules Baldé ñu commencé cay def ay démarches matul sax une semaine xam nga après moom ci la gaañu mais nag xëy na am na ñoo xam ne nii jàpp nañ ci mais àdduna moom moo tëddee noonu yow Lamine yow laa njëkk a woo di la wax ci affaire Jules Baldé Junior bi metti bi ma metti nga ni ma dëj kenn du fa dem di xuloo bàyyil dinaa ñëw jël si la ñu waxtaan ci ma woo Modou Mbaye Bekaay maa ngi koy félicité moom it di tàkk mu ni ma Ondu man su doomu ndey nga am na yoo xam ne nii du seetaan koy wax bàyyil ba giif nga mën a wax Saliou Khoule maa ko woo direct Saliou Khoule tamit maa ngi koy maa ngi koy waaw nit ku baax la quoi parce que am na yoo xam ne nii seen ni doo nga la ko mënal dama ko woo mu nekk studio ma waat ko mu nekk studio ma envoyé ko message mu woo ma ni ma Ondu lan la ma expliqué ko mu ni ma loolu ak àdduna ñoom ñoo ànd parce que mu du mujjee ci moom te du njëkkee ci moom ni ma bàyyil ba giif di doog a wax. xëy na nag tey man jàpp naa ne giif naa war naa mën a wax waa feebaru Jules Baldé Junior dëgg la ñu bëri dañ ko seetaan ñu bëri dañ ko seetaan surtout ment waa Pikine man waa Pikine laay am lu ñuy waxal gis nga pikinité nekkul fen nekkul seytaane nekkul rambaaj pikinité deret la bu njëkkoon da nga xamal lan mooy deretu pikin fuñ la gis xam ni yow borom jom nga fuñ la gis xam ni yow garmi la fuñ la gis xam ni ndaanaan nga yow doo tuutil Pikine fenn mais Pikine léegi dafa bëri ay wax yu sew dafa bëri ay wax yu sew yoo xam ne nii jaru ko ah Abibulaay feebar na gars yi nañ ko jàppale. ñi ñëw ci ñi ñëw ci dëj bi keroog bu ñu defoon ku nekk 1000 francs 1000 francs Abibulaay dina egg foofu te ñu bëri seetaan si moom moo leen fa indi woon ak lu ñu wax dëgg naa ñu ciy wax ci Ama Baldé Ama Baldé man personnellement li ma xam ci moom laax Lamine man mbëru Pikine am mbëru Pikine le laa la ñi ma bokkal écurie ñi ma bokkalul écurie amul mbër buy taxaw naan Onde day ñëw sama kër. man xaw ma sax fu ñu dëkk ñoom Ama Baldé man seen kër laa yaroo moo tax ma xam fa man kenn laa fan man maa koy wax chaque jour maa ko bëggal sam bopp muy Jules Baldé Jules Baldé lépp lu mën di xew ci àdduna ak lu mënti mel ak lu mu mënti am maa ko bëggal sam bopp te at bi benn yoon lañ ciy gisante. billaahi wallaahi taalaa te man fan ma Ama Ama moo ma war a fan mais man du ma koy fan nit loolu noonu xam nga xam nga man sama yaay liggéeyul sama kër papa lu may toppee kenn. Ama Balde bi ñuy bi ñuy ñuy ketal jibi Ama jibi biñ koy jàppale maa dem ba fekk ko seen kër maa dem ba fekk seen kër ni ko Ama mu ni ma waa ma ne ko dañuy jàppale jibi mu ni ma léegi nan la ñuy def ba jàppale jibi ma ne ko xanaa ñu dugg ci autorité yi mu ni ma ond yow loo wax noonu la man bëgg naa loolu billaahi ma woote ju FM ci tàng tàng bi direct Saliou Khoulé jël ma ma wax ak moom ni ko daa am suñu booy bu feebar jibi damaa bëgg ñu jàppale ko Ama wa ngi nii Ama jël téléphone bi wax ci rajo bi direct ni dama bëgg ñu jàppale jibi xam nga Saliou Khoulé ni ma léegi dinañ woo Mamour Kandji ñuy woo ay Bougane Gueye woo ay autorités yu bëri ba ñu programmé ko gis nga man maa toog Pikine ci benn jotaay ñuy waxtaan ñu ni jibi liñ koy dimbalee lépp. am na koo xam ne ñu ngi koy jox xaalis bi waaye dina ko lekk manta waxuñu woon man de wax nañ turu kooku yow bu doon Lamine yow loolu yow la est-ce que doo reculer parce que góor ku nekk tamit gor nga quoi ñun dañoo war dañoo am famille dañoo war a am jabar am ay doom. kan lañ taxaloon loolu. kan lañ ko taxaloon. non dañ ni ki ñuy jox xaalis bi ñuy dimbalee jibi kooku day lekk xaalis te ku jéggi jibi la kooku xoolal ma wax ju ñaaw jooju ay nit jug pour jàppale nit. nga naan diw mi ñuy jox xaalis bi man demoon naa ba ciy def ay démarches yu bëri Saliou Khoulé bi ma laajee numéro ji bi te sa numéro Onde pour ñu joxe ko fi lu waaye am dugal ko fi dama numéro ji bi laa ko jox bi mu laajee Ama Ama numéro ji bi la ko jox woote nañ ñaari yoon mais xam nga yooyu day ragal loo nit. day ragal loo gor. bale Balde Baye Mandione laa moom laay waxal moom suñu mag la moom nit ku baax la li mu wax noonu Ama mënoon na woo téléphone Ama ni ko rakk. damaa bëggoon kat booy bi nangam ak nangam ama dafa am famille dafa am ay mbok dafa am ay nit ñu ko bëgg. Mm. mais rafetul nga taxaw ci média naan diw jël na avance dafa waroon a jël loolu 5 millions jox ko nit. loolu moom bi bi Ama Baldé di joteeg waa waa kii fële Mbour bi ñuy joteeg waa parcelle yi moom moo taxaw défendre Ama kon moom am na lu ko lié ak Ama am na loo xam ne nii war naa tax mu am sañ-sañ wax ak Ama est-ce que nga mais nag Pikine ak Sénégal moom moo demee noonu. chaque jour luy jaxase rek la ñuy xool ñu ko wax man bal Balde mayuma 100 francs maa ngi jaar billahi nii laa toogee ci kii bi di ko wax bu amee 100 francs yu muy maye na ko yóbbu seen kër yaakaaruma Ama Balde yaakaaruma nit kuy dund mais dëgg bu jotee dañ koy wax man li ma xam ci Ama laa wax. waaw ba léegi waxagoo li nga xam ci Ama de. Ama waaw. barki Seydina ban taxawaay la amoon ci feebaru jibi yaataa bi ak ak ak. feebaru feebaru yaataa bi. loolu man maa ko dund ak moom mais man maa continué wu. xëy na nag nit dina bëgg dara mais du am ku ko ci poussé wala dara après ñun ci lañ dajale li ñu am ñu yóbbu ko. feebaru Abibu Laay bi. <laughs> man de armée le keroog Ama Baldé ngi fa. Mm. dëj ba yaayam mi ngi toog fi ñu taxawoon maak yow di report yaayam mi ngi fa taxaw pour man Ama Baldé bu dimbaliwul ci bi yaata ah. du am du am accès dem ci dëj ba bay def loolu muy def noonu yëpp. Jules Baldé Junior. Jules Baldé bu dimbaliwul Jules Baldé. Hmm. du am accès dem ci taxaw ci dëj bi di di jàpp ci kii yeeg man pour man nit nit nit fooweewul noonu. yaayam tamit ñëw aisé toog ci digg nit ñi ñëpp di ko gis pour man bu ñu deful woon li ñu war a def ñoom dañuy làqatu. ngis nga ni yow da nga jàpp ni daal dimbali na ko. man li ma jàpp man. li ma hmm. jàpp pour man nit boneewul noonu pour man xanaa si ennemi bi gën a rëy sax. boo gisee Jules Baldé ni mu doon souffrir loo bon bon bon bon sa ennemi bi gën a rëy ak loo dëgër dëgër xol boo nekkoon firaaw na sax war ngaa am xolu yërmande ci kooku. Hmm. parce que nit nit rek la mais man loolu laa jàpp quoi. Hmm. bu fekkee ni Ama jàppalewul nag Jules Baldé Junior moom moo gën a bon ci lu yàlla sàkk. Hmm. bu fekkee ni jàppalewu ko moo gën a bon mais man munu maa gëm ni Ama Baldé jàppalewul Jules Baldé Junior. xam nga ba pare moom dañ koo war a bàyyi. kan ji ah. Ama xam nga léegi dafa dem ba fu tuuti ci kanamu nit ñi da nga koy gis ci biir nit ñi léegi day làqatu dëgg la dëgg la doomu jàmbur la nañ ko bàyyi mu liggéey ama seen waa kër dañoo déparé ci zéro seen kër metti mhm. muy rayante pour génnee leen ci mais doomu jàmbur nga topp ko doomu jàmbur am na yoo xam ne mhm. dafa ñaaw mhm. am na yoo xam ne dafa ñaaw doomu jàmbur buy liggéey pour dimbali ay waajuram Ama Baldé pikin yëpp laa la wax mën na leen wax seen seen tur kun nekk sa tur mën na la cee jaaraat man du ma géwélu juddu Ama Baldé yaakaaruma Ama mais bu dëgg jotee dama koy wax parce que position bi mu nekk nii fi mu féete nii man ma fa féete woon dama koy soxla mais moom nag moom moo war a génn wax. bu fekkee ne am na lu ñuy wax pikinité pikinité ku wax mun la Dominique laa juddoo Dominique a ngi nee Dominique boo fa demee bokk na ci hôpital yi gën a salte Pikine lan lañ defal Dominique syndicat laa fooye nangam ak nangam yooyu damay bokk ñi nga koy développé pikinité nekkul nga toog rek di jaxase waa Pikine di seytaane di fen man yaakaaruma kenn kenn du ma gis open presse kenn. kenn du ma gis kër kenn man sama équipe ma nekk sax bu ma jógee entraînement mbër yi duuti ma gisati man du ma ànd ak mbër. Mhm. xam nga li ma wax li dal Abibulaay jomb jombuma mën naa dal keneen. bu fekkee ni nii nag loolu noonu lii nii ñu wax nii nii dëgg nañ dimbale yaayu Abibulaay parce que Abibulaay nee na moom benn bu góor la. Mhm. moom moo war a dimbale yaayam. Mhm. kon tey dimbale Abibulaay ba tey weesoogul. dëgg nañ ko dimbale. beneen bi mooy jibi ama mi ngi tëdd. waaw jibi mi ngi tëdd lii leçon la pour ñoom. lii leçon la. pour waa Pikine. parce que affaire dañ koy bëgg a jël rek sëf ko Ama Baldé. waaw non moom Ama bandi la nii ci ay mbedd boo dajewoon ak moom ngeen xeex ak affaire yooyu mais munul àdduna Ama munul àdduna kom ay fen ak ay jëw ak te Pikine dafa bëgg loolu ngay bëgg di def ay actes yoo xam ne nii dalay lay wóor ni yow lii du dëgg ci yow da ngaa foo mais da nga koy def pour nit ñi gërëm la ak nit ñi bëgg la yooyu noonu amul sax man xam naa Ama Ama boo ko ne woon kañ dem fee ñu rayante ngeen mën nga ko dem boo boo ko ne woon tey gii kañ dem fee def lii ak lii ci ay affaire u der mën na koo def mais Ama ni mu mel gis nga ko benn ban ministre ngay gis Ama di ànd moom wala leneen ay waxu dof rek la lay wax. xam nga man mi bërki démb la ma koj ci kii bi tali bi xoj ma nar maa rey gaañan oto yi di pin yooyu la xam moom xale la amul poroblème mais tey jii leson la ci jibi buñ fi bàyyi ba jibi yàlla na ko yàlla yëkkatee jàmm mu wér. mais tey jii lii ñuy def nii niñ wëlbatiku sotee ko. Hmm. jibi yaata hmm. tey jii ñoom ñi fa nekkoon dëj ba ku nekk boo defee téeméer téeméer ñu yóbbul ko jibi jibi tey li mu bëgg mën na koo am tey hmm. soxla na ko. te xale bu ndaw la avenir la mais tey jii fi la ñuy nekk di dugg ci YouTube bi wax ju ñaaw ju nekk ñu wax ko nit ñi.